Khalifa Sall ñu bëri nañu jàpp li tax mu contrôler ville de Dakar D'abord, d'abord, euh, Dakar euh, dëkk la bo xamné social ci ñoo fi ëppoon parce que 19 communes ont Abdoulaye Diop expliqué na naka lañ ko mais aussi la collectivité de la communauté la ak la aujourd'hui on a vu Amadou Ba le candidat de Benno Bokk Yaakaar première tournée bi mu Dakar dafa dem été dignitaire yooyu ñu on a l'habitude de les appeler grands électeurs même si ça n'existe pas au Sénégal mais japp nañ ne ñooñu ku ñu andal pour nga jot ci Dakar dina yomb en tout cas gis nañ Amadou Ba dem est-ce que aujourd'hui démarche bi Amadou Ba djel euh, ko ak Amadou Ba aussi c'est un ancien socialiste est-ce que nous nous nous créer la surprise moy Benno mbok yakar ni mu gagné woon Dakar en 2019 Amadou Ba ñewat gagné ko. Amadou Ba pour préciser d'abord c'est c'est le symbole de la transhumance. ya <laughs> ya en 1996, Amoudouba était conseiller municipal PS. C'est un responsable qui a traversé, qui a mangé à tous les râteliers. Les canapés. bon, 2000. Nous avons nous avons ci wad karim wad nous ah, ah, amadou ba wad ak domam mu daw dem ci Macky Sall entre les deux tours cotiser cotiser bëgg comme président parenthèse. Amadou Ba nit ñi comme un euh, euh, comme un acteur de l'administration fiscale boo xam ne euh, dafa amal Sénégal njëriñ ci xam-xamam ci jaar jaaram Bachir ma ngi wax léegi ñu mu formé ENAM lu tax nga bëgg a ñëw décrire ko comme un politicien boo xam ne sur xam ne loolu toogal ni ki mu toogal ni Abdoulaye Makhtar moo ma formé man politiquement oui leer na ma ne man hmm. man conseil municipal premier conseil municipal bu plateau hmm. moom moo doon maire bi j'étais le plus jeune conseiller ok leer na ma 96 vous avez été conseiller en 96. en 96 19 ans là. L'air na ma ne Ablaye Matar moo dàq jàng Amadou Ba. Hmm. moo gën ad gën xam administration mon ko gën c'est mon sentiment non dama lay wax rek. Ah, non pour te dire que pour te dire que c'est la dimension hmm. politique de l'homme Faut laay waxee. Hmm. Amadou Ba c'est le symbole de la transhumance muy Ben. ñaareel 2014.

ak casquette premier ministre am lay utiliser pour di di taxawaalu ci ci ci ci si si yi di dem ci collectif parce que tey Amadou Ba bu don gaay bu ko né élection yu leer deug Amadou Ba du nek sax premier ministre. Macky Sall da koy décharger tek ko mu dem politique wa te ap candidat yàgg nek déclarer nek président mo gëna a premier ministre bi. waaw mais buñu ñu ba président bi. né mom bilan am la la res. dafa bëgg kii nekk nañu def ñu à chance égal 4-4 yi ko toppoon keroog bu muy dem kër Ablaye Matar. Hmm. ku leen moom du état bi day politique tant que politique la essence politique bi la dañu waxante dëgg donc ñun loolu garaawul gis nga Dakar. Bart carte carte mairie bi lay def de ak essence. déedéet Bart maire bi jox ko oto. pour ton information ah, mais essence beeg yooyu. waaw dama ne bi c'est normal mais ma Bart. Hmm. mais Bart dafa dem dafa dem seeti gi kenn seetiwul kenn. bu demee seeti sëriñ yi. mu ngi doxantu mi ngi mi ngi doxantu si. non mi ngi doxantu dans la bu demee Touba tey c' est l' institution qui se déplace xanaa mun na jël essence mais kii c' est un baa ki ba campagne. du dëgg ki ba campagne foofu laay waxee léegi nag candidat dakaar nag. ñun nag Dakar xam nga première fois bi ñu koy gagné Khalifa Sall amul woon sax oto dañ doon dox. loolu mën naa di dugg di dox di dugg ñu ne yéen seen candidat bi anamu te dañu gagné. Mm. ñu demaat deux mille deux mille quatorze ñu ñëw ne ñu seen candidat bi. Euh, Macky Sall ne ko da ngay ñëw wala ñu nangu maire bi si yow. Hmm. mu dox ba gañe leen. du dëgg ñun instant bi dañ ñu jàppee rek ak outsider <laughs> parce que loolu moo ñu jig fii ku ñu wax candidat su ngeen gis Sénégal nit ñu ne kii mooy favori mu gañe ñoom Tanor bi ñu nekkee favori sax outsider boo jóge fa lay gañe leen moo tax man dama ne xalifa Sall keroog position bi nga nekk nii moo ma gënal nekkal outsider gars yi bañ ñu calculer. est bool que nañ leen ci outsider loolooy problème. ku mu neex sax nga teg ñu tokaar. <laughs> ku mu neex. parce que ku mu neex nga teg ñu tokaar mais leer na ma ne bu ñu wàññee carte yi yaanaa ki vont déchanter. Hmm. Hmm. waaw loolu daf ma leer. et dakaar euh, oui Dakar c'est le combat de Dakar c'est Dakar sans Pastef. tam euh, ah, ah le combat de Dakar élection présidentielle ça va être compliqué. cette bataille on va la mener yàgg nañ ko mener. Hmm. avec Wade tout puissant. actuellement. population bi dafa changé. déglu

Mmh. déclaration de patrimoine cest à que ce copain gars aussi. il faut qu'il suive. semaine la semaine suivante j'ai rectifié exactement dans les mêmes formes. non non non non non. non c'est-à-dire que c'était à 100 limites. c'est parce que on lui a truc. Euh, ah. mais le la

Khalifa Sall c'est le. Ah, il a quand même li nga xam non mun naa la génne dama koy capturer yónnee leen ko yéen ñëpp. <laughs> ma ne da na nekk euro. non mais bon tu sais dama la wax dama ne Khalifa Sall. xam nga fan laay fan laay waxee.

donc Khalifa Sall. gàcce ngalaama nekkul riche. bi muy dugg def na déclaration de patrimoine bi muy génn defaat déclaration de patrimoine Basir nag ah vraiment sa euh, professionnalisme wanewaat nga ko tey. Ah, xam nga. boo doon keneen bu ñu la insister du dëgg waaw nit xam nga.